Oh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen ndongo Seydina Jibril Kawsara moo am yéene dellu si ak yéen ci yóbbalu bés ku muñ lori soxna yàlla fay la ci tuyaaba ju toll ne yam fayoon yonent yàlla ayub ca natoom ba ku muñ sa lori soxna yàlla fay ci tuyaaba yu toll ne yam fayoon yonent yàlla ayub ca natoom ba ñoo ngi ko toxalee nag ci téere bu naan masaalikul jinaan sëriñ Tuuba wax ko fa jërëjëfe sëriñ Tuuba maam Cheikh Ibra asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen ndongo Seydina Jibril Kawsara moo am yéena dellu ak yéen ci yóbbalu bés bi bokk na ci liy waral mujj gu ñaaw di woote wilaaya te fekk na amoo ko bokk na ci liy waral mujj gu ñaaw di woote wilaaya te fekk amoo ko ñoo ko toxalee nag ci téere bu naan masaalikul jinaan sëriñ Tuuba wax ko fa jërëjëfe sëriñ Touba maam Cheikh Ibra asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen nongo Seydina Jibril Kawsara Muhammad yéena dellusi ak yenn ci yóbbalu bés bi saa boo dee sàkk wërsëg ci kaw niñ ko yoonale ci yoon te am ci yéene dundal sak njaboot ak def ko ci yoonu yàlla rekk su boobaa xamal ne yaa ngi ci jixaat ju mag a mag su boobaa xamal ne yaa ngi ci jixaat ju mag mag kuy sàkk wërsëg ci kaw niñ ko yoonalee kooku ci jixaat la nekk kooku ci jixaar la nekk ñoo ngi ko toxale nag ci téere buñ naan masaalikul jinaan sëriñ tuuba wax ko fa jërëjëfe sëriñ tuuba maam Cheikh Ibra Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen ndongo Seydina Jibril Kawsara moo amaat yéene dellu ak yéen ci yóbbalu bés bi yii ñaar mooy ëpp ci liy yóbbu nit aljana ragal yalla ak rafet ko ñaar yi ci top nak ñoy ëpp ci li yobbu nit sawara moy ci gemmiñam ak kayam moy ci gemmiñam ak kayam manam nit wax ci làmmiñam mbaa mu lekk ci gémmiñam lu aay mba def ci sawukaayam lum ca warta def yi ñaar ñoo ëpp ci liy yóbbu nit sawara ragal yàlla ak rafet jikko nag moo ëpp ci liy yóbbu nit aljana ñoo ko toxalee nag ci téere buñ naan masaalikul jinaan sëriñ tuuba wax ko fa sëriñ tuuba maam Cheikh Ibra asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi leen di share. seen taalibe seen ndongo Seydina Jibril Kawsara moo amaat yéene ak yéen ci yóbbalu bés bi li ëpp ci li ngay def nit ñi di ko gis mbaa koy xam li ci ëpp بوقلجه وقيسات du ko taxa bari njariñ lool la nga xam ne kenn gisu ko sa digganteeg sa boroom rekk mu làqu loola mooy ëpp njariñ mooy ëpp yaakaar lool la nga xam ne kenn gisu ko sa digganteeg sa boroom rekk mu làqu loola mooy ëpp njariñ lool mooy ëpp yaakaar lool mooy ëpp yaakaar lool ñoo ngi ko toxalee nag ci téere buñ naan Masaalikul Jinaan sëriñ Touba wax ko fa jërëjëfe sëriñ Touba maam Cheikh Ibra asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi leen di siyaare Sen taalibe Sen Nongo, Seydina Jibril Kawsara moo yene yéene ci ak yene ci yóbbalu bés bi nit ku ne dal kem na muy nango jio ak bakanam bañ ko top ci lam bëgg te tek ko ci dëgg ak nangoo sonne ci lu baax rek noona la darajaam tollu noona ñoo ngi ko toxalee nag ci téere buñ naan masaalikul jinaan sëriñ tuuba wax ko fa jërëjëfe sëriñ tuuba maam Cheikh Ibra asalaamualeykum wa rahmatullahi taala barakaatu maa ngi leen di siyaare seen taalibe ndongo Seydina Jibril Kawsara moo amaat yéena dellu si ak yéen ci yóbbalu nattu lu metti metti xéewal ndax day tax jaam bi xam boppam xeeb boppam daldi xam ne moom a jam dong la nga xam ne sibiru su metti dong su ko dalee rekk mu daal di xam ne nit dara nga xam ne sibiru su metti dong su ko dalee rek mu daal di xam ne nit du dara mu daldi xam ne nit du dara ñoo ngi ko toxalee nag ci téere bu naan Masaalikul Jinaan Sëriñ Tuuba wax ko fa jërëjëfe Sëriñ Tuuba maam Cheikh Ibra Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. maa ngi di share. Sen talibé, sen nongo. Jibril Kawsara Muhammad yéena delu ci ak yéen ci yobul bés bi feeg ngi dund rek buleen wóolu seytaane ndax jëmm ji daal feek ak ruu gi tàggoowut ak yaramam bum defe ne raw na seytaane feek loolu amul rekk nay moytu seytaane di yàlla musal ko ca te bari la tudd yàlla jëmm ji daal feek ak ruugi tàgguwut ak yaramam bum dafa ne raw na seytaane feek loolu amul rekk nay moytu seytaane di ñaan yàlla musal ko ca te bari la tudd yàlla ñoo ngi ko toxalee nag ci téere bu naan Masaalikul Jinaan